noppi góor gi yëngal bopp bi deeyaat ko kenn ku ne jóg sab sikkim ni papa foog man tam nga def ma noonu <laughs> wujje waaw ni nga defoo gémmi gi teg ko ci nopp nguur si daal nun ñëpp di nga fob sa gémmiñ teg suñuy nopp lu mu leen di wax kii daa am question nañu seen question bopp amuñu question bu dul ni nga ko def di nga nu ni def coo leen di coo bay góor <laughs> waa baax na bàyyi leen cool yi bàyyi leen xoj ci seen rakk la xam ñu arrangé ñu ni kii daal bu ko fexee lut bu màggee mooy doon góor gi ëllëg gis nga ko قال لا يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك سوق لفي فيكيد لك كيدا لطه إن الشيطان للإنسان هدوا مبينا صدق الأولاس يس غور غاغي واخ واخ دوم جي بول نيت لي موك سا گنت دوم دنج سيكرا تي ني نيو لا خيل te ñoom ñëpp ay sowaas lañu dañoo soxor de dañoo rànkiñee mu génn ñu nax ko jëndal ko tuuti chocolat ak mburu nga xawaraay bopp bi kenn ki yëkkati ko lo- lo- loolu sama papa doon wax ah mu rewele gént gi damaa gisoon jant bi ak weer ma doon wax papa mu ne ko ah yow mii mu daal di koy cëppeel ñoom ñëpp ñu waxtaane ko ni waxoon naa leen ko nguur si boppam bii su fi màggee àdduna tukki hmm? Hmm? noonu lañ ko def ci lañ ko fexeel nag xëy xëy euh, xar yi papa ji amoon ak yooyu te di leen daan sàmmula ñuy lànk de bàyyi guur gi tawteel boppam bu ngeen di seet am na film yu koy génne nañ koy gisee ci gétt nag yi ak mbubbam mu doy waar moom moom suñu ant yàlla bi ah, ak sikki mu buri bi ak yat wi mok maire bi rek ci lan ne xey ni papa togal na samale la tay ay ngeen sami ñu ni ko waaw mag nga nu dem ba genn ni ko yusuf du ñew gengu ngeen papa ji ni ko dedet mu ne papa bu dox suñu ak suñu rak ji bo me ay da nga leen di boole wala boobu wax kenn du papa ji ni ko woluuma leen waxante nañu lu bare bare bare bare bare ñu waatal ko ni ko dañ ko indiwaat ba fii ban génnee lañ def seeni pexe nu nuy def ak nguur si ñi ni pexe mi kat weesuwul lenn nan pax dugal ko ci bu dee ni góor gisuñu ko kenn ki ne moroom yow yaa dof ni góor gi jox ma góor si ñëw naa gisuñu ko ki ci nooy def xanaa nu wut gileem teg ko ci yow tànk yi ak bi mu kee dàq gileem gi mu dem kenn ko ne kon ne waxuma nguur si ak ni mu boŋe nu ñuy def seytaan yi cëpp ci seen wet mel ni ku ci bokkut moom jógee benn barab gaa yi waaj baax xaar leen moom iblis ñu xaar ko mu ñëw mu ne dama dégg ngeen di waxtaan du ngeen ngeen liggéey seytaane moom xam na ni fa wàlli yu yéen naane la naane nun naan ci baax la naan duñ toll ci nga mbon day xam xëy bu xam na ni kii bu màggee lu lu mu fi yàq moom seytaane waaye nguur si dana ko defar mu génn ñett ña ca mag nga xam lu ngeen def mu ne ko ab teena ak romb naa fi benn teen boo xam ne ak jaaj gu tëdd dañ koo gas gas mu tëbën dem leen ngeen sànni ko ca dem seen yoon sooy demee ngeen gis ne papa te lekk na ko rek ñu ne ko yow góor gi jërëjëf waay waaw <laughs> c'est une bonne idée waaw noonu dinañ mujj ak moom hmm? ñu yóbbu ko ci bënn ga tàbbal ko ba ay jëgg ñoo xam mujj jaar génne ko ci kàttanu yàlla dafa guddi dem jaay ko ci lu matul sax dërëm ndax dinaar moo gën a moo gën a moo gën a rëy bi bax si dara bi mooy dërëm bu nu xaaj xam naa ay duubal la wala ay rek booba ak ni mu taaroo yusufa rafet ku dul rasulullahi moo la dàq moo nee ci barsan da nga dégg si Musaa kanam da koy wax ak na mel bi mu duggee ci marché bi rek dañ ko daal di jaay benn waaye jënd ko buur gis ko jëndaat ko ci moom ndekete li ñuy wax daw daay tabik jëmm ñoom dañ ko doon jéem a sànk ndekete fii lay jaare baax yàlla bu la nar a dimbali Mohamed départ ni am ay ay tolof tolof ay conséquences boo ko nandee rek mu ñal mënul ñàkk tolof tolof yu jëkk yi soo xasee xam fi nga jëm rek yow demal rek yàlla nga ñëw foofu la moom mujj jaar dañ koy tënk ba ñu mujj ko jël yóbbu ko kër buur buur jël ko boole ko ci ñi ñu nettoyé palais bi ak asar wi soxna si buur gis ko takkali koy pot takkalati koy pot loolu gaa na takkal koy pot de ko ne subaa ngoon ngoon ci moom rek fu mu ni aw rek mu ne ko xale bi kaay delloo ko sama bunt bi bu nee ni jox ma ndox fee ca frigidaire ba ndekete bëgg naa fexe ba fii teg moom rek xale bu ndaw hmm? ba di ko ko miinal boppam ba Yusufa miin ko mu ñaan nu bàyyi kook moom buy yónnee na ko yónni danga da ko nopp boo naree baax lu ne ngay gis yàlla xam na ko ci noonu la continuer ba ni mu ko doon jànge léegi xëy xëy ni nga koy fexeel tëj punt yépp ci ki nga xam ne mooy grande dame dëkk bi dàq fi tëb naa lu bari nag ci waxtaan wi ëllëg xam nga pale boo xam ni juróom-ñaari man da ngay tabax ben immeuble ni wëraat ko tabax benen wëraat ko tabax benen ma nga xani ni du comme ni bar bi même ni bar bi la ngay def menen mu ko wëraat menen mu ko wëraat menen mu ba nek set ben bu ci ne ak assemblée ba fay xew neeg bi moo ëpp suñu bar mi 1000 mètres carrés ëpp na ko xam naa ñoom Ousmane mën nañu koo calculer benn nal képp moo ne ci digg ba boo xam ni mu toll li ko wër yëpp ay vitrine la ay seetu xam naa booba yi arme ñoo ngi def xewagut foo xool gis sa bopp mu jox ko caabi ni ko topp ma jël benn beneen bon ne ko bunt bo weesu maa ngi suuf korosé ko te téyel ma caabi ci yusuf amul lu bunt bu mu romb rek dégg karaj karaj bu geestoo gis bunt bi kat du gis keneen benn ñoom nañu ñu ñoom ñett ndaw si yusuf ak kii tëj bunt yi gisul xam ni fii moom jàmm amu fi kaay ma yónn la képp bu ñu jaree tëj bunt yu toll nii amee ah bàyyi taale yàlla moo jar a àndal loo tëj tëj tëj di nga bàyyi port boo xam ne danga koy fàtte tëj na port yépp biñ demee ci chambre à coucher moom fi nga xam ne fii moom am na lu yuusu fa doon yuuxu ba déwén nit du ko dégg te patron ndax li mu tëj ci bunt daa bari kenn nit mënta ñëw ci moom te ubbilu la ba mu des chambre à moom am na benn porte bu ndaw bu ne fii boo xam ne moom rek moo fi jaar ak borom këram borom këram boobu mu ngi ci salle bi muy defee réunion réunion bi tas moom mu war a jaar foofu dugg si ak garde corps yi ak benn fereeru waay ndaw si boobu buntu la tëj da koo fàtte naa wu daa yàkkamte ba mu ba mu Yuusuf daal amul jëkk ba yàgg rek mal fa yi la la wàcce keroog la mos a gis lu mel noonu moom Yuusuf taar bu mel nii taay bu mel nii forme yu mel nii mu mel ni jaani ñàngoor di melaste ko <laughs> am na koo xam bu doon moom am nga Yuusuf moom biir tànk du laal bi la doon dawe ay am na koo bu doon moom biir tànk du fekk bee lay def <laughs> laa hawla wala quwwata hmm? Yuusuf buddi ko ndaw si topp ko wàcc na mal fa yaag bagage yëpp ba nga fële xam naa bu desee dara daal loolu ñu jiit loolu ndaw loolu moo fa des ah yàlla may na ko bu bu mu jub rek moo ubbi ko te lépp dañ ko croisé woon ba ci dernière porte juste tombe ak président di egsi de la ak ñi mu àndal ak mbokk ndaw si ci boppam soo ubbee pentre di ngay jëkk a sas sës benn femme ngi fi boo xam ne yor na doom bi ab liir bu ndaw boo xam ne même mbokkam la moom mi ab liir la yor lu gisub ci bunt bi buy suufee di kër kër kër fekk buur baa ngay ubbi fee kii ubbi fii ñu xëccoole ko bi ci la buur nañ daj bunt ñu daj gisub ni gisub taxaw yem ci yem ci président xam lu mu wax yaa ci yem de te dàq na Yuusufa dàq maanaam ñaata ñaata porte lañ dàq muy dàq nguur si moo tax ni ñu gaawee ci damaa wiyoole te fekk ñoom ñoo la wiyoole de ak ñoo mën a wiyoole ak <laughs> sëñ bi dañ lay wiyoole ci làmmiñu wiyoole la <laughs> ok ay wiyoole yu réy lañu <laughs> de bi ngeen mën a tuumaale amoo nooy lijjantee ba génn ci ndax yàllaa leen man loo ci làmmiñ loolu waaw dañ koy booleek di jooy te yow mënoo jooy ñoom mën nañ ko billaahi waat ci seen ndey waat ci seen baay waaw damaa fekk may nelaw nelaw goo xam ne ba di xongu <laughs> dara feeñut yow noonu Yuusuf dana yaaj ji moom moom mën tox lu mu dëkk te li ndaw si daj ba dugal ko ci biir néeg bi ak xel yi mu ko dàq mu ne wax lii moom dafa yéemu ci nu nit di ma ne lii mu nekk fay mbat ma mënta wax suñu borom di ko diglul ndeysaan xale bu ndaw bee mooy tontu moom moom moom ndaw si grand frère am conseil technique bu président bi la moo ko xool bàyyi na ko ma defal ndànk ku yeewu la moom da diglu nag bàyyi xale bi mu wax président ba ko mun ko président xaaral kii man maa bokk ak moom sa soxnaa mais bàyyil xale bàyyil mu wax bàyyil Youssouf foo wax Youssouf mënta wax ñu jékki bàyyi ak benn xale àddu fee ab liir ni na ngeen ko seet liir bi jooy lañ ko xamee woon waaye daa wax jàpp bet jàpp bet président président ak gestu kuy wax ñu ne nii liir bu ndaw bi ci wetam. man ko na nga xool habillement Youssouf bi su fekkee sama tante li wax dëgg la ci kanam mooy xotteeku mooy furwaasi nit bu la dëgg dëgmalee ngay jëf jëflante moom boo koy poñe fooy jàpp président président la ko laaj de président ni ko xanaa ci kanam laay jàpp man ko da nga xool bu fekkee fi la xotti xottiku bi nekk Yusuf mii moo song sama tànt ñu xool gis ñu dara man ko xool leen ci ginnaaw mbubb mi su fekkee foofu la xotti ku nekk da doon sama tànt di ko dàq xoolal liir bi ndaw seen ni tasax maa la ko wax <laughs> buur bi ne ko yow ko yaa doon de ko ne yow yow mbagum jum mu toll yow ak ni réew mi toll bay président ngay sama soxna maanaam xale bu ndaw bi nekk sama biir kër yóbbu sa furu faraw yi naka jekk nga ne yooyu fii de xale bi xamoon nañ ci lii nga nekk xolal yalla sun borom mom lim jëk wax rek moy dëkk bi li fi xewoon mooy ku fi def loolu dañ la ray mom niwul nañ ko ray dañ ko tej soxna ci loolu la wax moo tax bo déggee mu ñaanal la rek da nga amul jariñ sa son waye bu dee am nga jariñ ci mom yalla nga tawte lay wax yow war <laughs> kisiñ bi do la ray mo <laughs> da da bu fekkee lan luy payu ku dégg fekk soxna patron nga di ko sàkku lu tëj kaso te wax du woon loolu rey la war a wax nañ ko nañ ko yóbbu fa ñuy rey ñu rey ko waaye niwul nañ ko rey ndax mi nga xaar maanaam buy coow li jàllee mu continué waat action bi nañ ko tëj fekk yusufa yusufa bi mu génnee li mu njëkk a ñaan boromam mooy su ma naree nekk ci ci pale bi te maire bi takkal may pot fu ma jaar guddeeg bëccëg fokk di nga si di nga di nga mooy yàlla ak man wax ci làmmeñam de dafa na rek nii maanaam bi ko bi coow li baree ba mu jaaxle mu toog li ñuy wax méditation xalaat yàlla sama borom maa ngi lay ñaan su fekkee lii laa fi nar a dunde ak jigéen ñi yàlla nga ma yóbbu ca kaso ba ndax ma mucc ci ñoom moo tax bu leer yàlla nekk ci yow lu ne ngay daj moom moo ko sàkk moo tax bi ndaw si ñëw nee na nañ ko tëj kon ñaan nga nangu na buur bi xool ni jabaram waxul dëgg waaye pour isoler ko na yóbbu ngóor si prison mais taxul mu mucc ca prison wala lu wut ñu koy gardel di ko xool ba xam fu mu féete bu toogee quelque temps ni day day def visite ci prison bi pour seet ba xam prisonniers yi sonn na ñoom sonn lu ñu leen war a dimbalee dina fexe ba egg fañ ci cellule bi ñu ko tëj ma laa wax ni foog ma am la nga të fii ngay dee ci kaso bi waay waay ñoo soxor waay yow li ma bëgg di ko def wala fii ngay dee foo bëgg yu génn kaso ay doo génn loolu donc ko fi indi bu génnee ni buur prison yi de moom sonn parce que ki war a sonn sonn ko foog mu ne kon ma boo ma génnee li nga bëgg naa la ko defal loolu nekkee moom waaye yàlla bu noppee ci rek noppi na ci nga tëb ko daañ ko gën a leer ëllëg ba kere prison yooyu ñëw wax ko gént yi mu nettali leen ko ñoo ñaa ko booleeg buur bi mu ñëw firi gént gi ca la jaaree génn lu bare bare bare bare la waaye nu yàlla mujjeek moom li mu daj famille waa kër baay ak liñ ko woon daj ko ci ja daw mooy yàlla ak jigéen daj ko ci kaso buur bi ko jëloon teg ko ci wetam mu nekk conseil technique nekk ministre bi yore wàllu finance ak wàllu dund buur ba daa mujj génn àdduna comme moom miin na nguur gi te xam na ni ñuy doxale moom lañ mujj fal mu nekk chef d'état wala yàlla ni mujjee ak moom ahsana maswaaya mu nekk de d'état nekk yonent bi mu nekkee yonent ba noppi nag lu baree bari la ci la géntam ko doog a ñëw léegi nag mooy borom dëkk bi xam na région bu nekk bu dee baykat lanu bu dee nappkat lanu bu dee nangam lan lañ leen war a defar pour dëkk bi suqaliku ñu am benn moment réew mi bekkoor liñ dajalewoon ci ay dund ñu koy séddaleen li mu njëkk a def mooy bind leetar dëkku papaam ñoom Misra na ñëw ñu wutal leen luñ ñu dundi ñoom la bëgg a gis ñu ko sànniwoon woon màgg na ba doon buur ñoom xamuñu ni mooma yéeneen néeg la borom a ciy fanaane nu xëy di ko yalwaan si moom moo tax kom nattu njaal benn ci famille yow góorgóorlu bisa ci kanam yàlla dana ma sosowee noonu ñuy ñëw ci biir mu leen laajte bañ ba ba xam ni ñii ya mu laaj seen papa ñu ko góor mu ko fa de waaye góor gu màgget mu dégg naa ko moom papaam la de dégg naa màgget na léegi mu ne waaw mu ne ko ndax mën ma ko andi suur bi ñu yaayam ci la gént gi leer papaam moom aw ñëw rek la ne nget may xeeñ moom dañ ko doon deena mu leen deewul mukk hmm? walawul mustafaan alaa maa woon ba keneen bi ñu ñëwee ndeysaan ñoom ñëpp ci dernier jour mu seen leen ñuy ñëw muy daw di gàttandu ci papa ji di daw di daanu ci suuf te boobu yonent la président la ndax yàkkamti ko aw ñëpp su jot nga xam ne kii mooy Yuusuf léegi mooy suñu kilifa te noo bokkoon bàyyi gàcce topp leen ak fi ñu ko jaarale màggal gan ko doon màggal mooy géntam kooku mu gisoon noonu moom Yuusuf alayhi salaam yàlla noonu yàlla may soweenu te bañ ñoo nattu nattoom yii nag ndax dafa métti yàlla mën na noo dimbali duñ jaar foofu ba ku nekk mujj réussir sa àdduna bay dimbaliwaate te bañ a toppante moo tax ñu ngi denk ñëpp ñu rafetal seen xool bu kenn topp kenn ci lu bon ak ku la ko mën a def nay sa sœur nay sa frère nay sa wujj nay sa yaay nay sa baay nay sa nijaay nay sa tonton ku la gën a baax baaxoo rek moo la gën waaye toppante moom ñaar kenn du ko def ba arrivé ñëppay mujj àgg yaa ma ko def ma def la ko Mohamed loo bëgg a mujje buñ la ci xeex dellu ginnaaw dana mujj dil sa loxo yow kese nga yilif ko ah dañuy wax ni ku ku ku muñ ku muñ moo man ku muus waaye ku muus moo man koy xeex dañuy wax ni muñ ñetti doom lay am muñ dafay jur doom ju ñuy wax mujj mujj fi waa boo muñee doom ji ngay taawloo mujj fi lay tudd soo continuer moom koo cay tegu muñ mujj fi ak moom ko àdduna rek ba mu torof torof rek baaxul fokk mu am tuuti yëngu-yëngu ñàkk wala feebar wala lii wala lii mais góor góorgóorlu rek te gëm yàlla dina mos a baax yàlla na yàlla defal jàmm defal nu ko defal ko mboolem jullit te teg nu ci siraat mustaqim te musal nu ci lépp luy problème ak loraange saar yi dafa neex ba lépp mëneesu ko firi da nga ci sàkk-sàkk rek waaye boo ci nekkee doo doyal lislaamu mel noonu jasakumulaa xayran allahuma rabbana taqabal minna innaka anta samil alim watub alayna ya mawlana innaka anta tawwab rahim bi jaay sayidina amad rasulullah alayhi salatu wasalaam